may leen secret boo xamante nii day dox ci wàllum ubbeeku ak bayre ñaar yëpp la boole wàllum ubbeeku ak bayre secret boobu la leen bëgg may balaa loolu nag ñu présenté leen li nga xam ne ñoo koy liggéey te muy dox ci wàllum ngelaw seetaan ak rab képp koo xamante ni njort nga sa jëmm ji ne dangaa am àndandoo wala nga am ngelaw seetaan wala rab di lay yàq wala lu mën a doon bii danga koy suuroo rek daan eh, diggante bu gàtt loolu nekkoon ci yow da nga bés ci incha allah ginnaaw loolu nag lii tamit ci wàllum ubbeeku la dox ku sa ku sa wërsëg nga bëgg ubbeeku ubbeeku bu yaatoo yaatu fas yéene jëfandikoo lii sungu su baax la képp koo xam ne danga ko am tey jaay te bëgg njaay may jar fexee la am lii incha allah kon ñu demal leen ci tabla bi won leen li nga xam ne moo ñu taxaw te mooy secret bi jëm ci wàllum bayra ak ubbeeku incha allah bismillahi arrahmani rahim secret bu wér la ci wàllum ubbeeku lay dox ak bayra da lay may defal ubbeeku defal la bayra léegi li ngay bind إذا وقعت الواقعة لا واقعة ليس لوقعتها كاذبة Fahrrad wieder. إذا رنجت الأرض مخرجا وبست الجبال بسا ma egsee gudd fi ma soxla rek waaye bu ma fa egsee naa taxaw insha allah fa kaanat habaan waaw kay fi laa soxla fa kaanat habaan شهاب basan léegi nag mbooleem miim koo xamante si nii mu ngi ci waaxee ah, soo bindee ba egsi ci miim dangay ubbi miim gi comme ni nga koy ubbee euh, soo bindee ba ak ci miim danga ciy ubbi boo ko dugal lii nga ci dugal adadu fit da danga ci dugal cent soixante quinze mim yëpp nag ba waa xam wi jeex même boo bindoon tamit wa kuntumoo comme ça dama leen nga def nii wa am na mim ba tey nga ubbi mim gi tamit wa kuntumoo ci fidda mim yëpp ngay ubbi mim gu ci ne nga def ci fidda moy 175 soixante waxa bi jëm su ko defé bo paré nga wut jaaru xaaliss nga wut ben jaaru xaaliss ak sunu biñu wax birwel ngeen ak lem ak xorom ak sugar bol ko sangoo ko juroom ñaar fan bayra la ubbe ko no bu gaaw lool sax ma sha allah jërë jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh chaîne YouTube Asrar